waaw ah, tey nag moom du ma ko doomi temps tas de parce que face to face bi moo alaat daw me ah ba ba géwal ñu dem ñu dem ci caatu géwal koy Diop de. booy dama la woo nga yéex a ñëw booy bi jog yëngal ko. kii nu mu demee noonu mu yéex a ñëw. ah man nar kenn woo si guuxum soow. Diop de borom soow mi. wuy ma wuy ma. mais nu mu demee noonu. non nañ de sànn oh caatu ngéw li nga ne bopp bi xam naa boo xam naa. booy nu mu demee noonu. mooy métti moo doon mënul fay ni mu toll nga naan dama bëgg dem toog ci maire <laughs> non maa ngi sant yàlla bàyyi baa la di julli si yonent bi. salaamaaleykum di gërëm suma ñaari waajur. di gërëm suma yaay bu baax. maa ngi dégg. Diop. la maa lay fay. na maire yë maire maire yëmbal bi lay nangu. coup bu yàgg te yëg bu yàgg te yëg hmm? baa ngi nuyu ñëpp ah. di sant bee Birahim sama grand di bëggee Khadim Sarr di bëggee sunu monsieur le maire Seydina Issa Laye sàmb di bëggee Ablaye Diouf Sarr Ami Top Abdou Naar mu ngi sant de taw waxoo ko sandal de Sarr moo ngi sant taw waxoo ko sandal mu jëndal ay billets yu bari baabal tontu mu ñëw duy Sarr mu mu ngi sant da nga bëgg wax ci combat woo Ablaye Diouf Sarr dama ah, a ma may ko li may wax moo ma pël solo Ablaye Diouf Sarr dama dig 10 bolo gi billet mhm. maa ngi koy wax mu ñëw jënd ko mhm. maa ngi ko koy dig ah liñ coow global business doomu ndeyu le jeune promoteur le jeune transitaire. Mhm. borom tund mbaambiloor mi. Mhm. maa ngi koy wax moom tamit 10 bloc laa ko sas. Mhm. di bëggee ñëpp di bëggee waaw maa ngi lay bëggee bu baax di bëggee promoteur bi di bëggee nu ko koy grand Cheikh Niang ak Faye borom yëmbal. maa ngi Serigne Faye. Serigne Faye nit ku baax Diop wóyul ba. waaw sax daal yàlla julli si yonent bi sang-sang yi seen suñu ñaari waajur. di nuyu waa Yëmbal benn Borak Kër Massar maa lay nuyu baax baax baax xam nga di waa Guédiawaye Gunaas sama kër papa di nuyu waa yëmbal tëli bu xong station yëmbal abarante super yi cek-cek yi nekk tëli bu xong tamit station ba xam nga maa lay nuyu au passage hmm. cek-cek yi nekk Yoff maa leen yenn gars yi foofu maa baax a baax a baax di nuyu waat waa Yoff bu baax booy nga dee dama ne bi nee dafa miin yëmbal dafa dugg loolu maa kii nee naa la bu yàgg te yowoo ku de naa naa ko waaw luy loolu damay nuyu ñi nga xamante du ma yëg super du ma paas. Hmm. cek cek du ma paas. Hmm. faaw mu nuyu leen. waaw waaw ah, nuyu waa sama maire yi may may ndégg suuf suuf tamit maire Tarum maire Madikan ah ak maire maire Thiama borom tëli bu xonk sandis bi ma defal tey macha allah yàlla yàlla dolli xam nga maire Nogoy borom Malika <laughs> aw ma fayam du nuyu waa l'international sax mooy zungale. ñëwal ci booy bi lu mu wax. kii nee naa la tànkam dakk na dakk na yëmbal xam nga Youssou Ndour dafa wan benn waay. newoon Tyson newoon na xale yu ndaw yi du seen morom mhm. mu ne li ma si jaaxal Bombardier màgg na moytu waaw waaw li ma si jaaxal Bombardier màgg na màgg na Diop màgg na mu jee juddu gën a të gën a ës borom soobe mhm. waaw booy bi booy bi miin na yëmbal de bu sooba yàlla ak yonent bi tànkam day dagg yëmbal mhm. lan moo dugal ci caatu ngéwël caatu ngéwël xam xam la moom dugal si moom jàmbaar la champion la teyit mbër la loolu moom ma dugal si moom te incha allahu rabbi su neexee yàlla suñu borom du ma ko jël pour boole ko sama yoon rek dem sama yoon incha sa sa combat ak jeex jàmm a freiné kan moo koy jàmm ñëw dugg ci combat bi combat bi nga dugg dafa metti du combat bi yomb de trois ans yi ma def si làmb mhm. sama morom yi ma dajale daan leen sama benn morom mënu koo def mhm. ñi ma dajale daan leen si trois ans barki yonent bi sama morom mënu ko mhm. te yow boo xoolee sama archive li nga xam ne Diop li mu wax ne lu laa wax ñi amateur lamb bi xam nañu trois ans yi ñi ma dajal daan leen sax benn morom bu mel ni Diop de mënu leen dajal daan leen mhm. te kii insha allahu rabbi su neexee yàlla suñu borom mhm. yàlla li maye su ko nanguwul foofu laa jëm moom mais bi léegi mais boo yu bëri ñuy kaaw ci biir YouTube bi mais ñu bëri dañu teg ci Diop de waaw loolu moom la si doole bàyyi baax la waaw moom su la gaa mooy mbayaar bi moom mhm. mbayaar bi tegal fi un million yi nii tegal fi kaw eh, un million yi nii wàccal fii kaw waaye dafa pare de wàccal géew <laughs> fii salaar bu la neexee nga xool ku la neex jox ko un million yi nii bu la neexee jox faal waaye sa xaalis baaxul soxlawuma sa xaalis tegal ma ay nii sa xaalis baaxul Eh, bëgg ngaa la <laughs> déglu ma déglu ma baay baal la dañuy booy bari nga wax booy defal nànk ngay ratatati di jaay làmmuñ bu rëy yow bu arbitre néppi boo dëgalee sa bopp ba duma la daan la yow ngay tàpper yow ngay yor man booy booy ma fontoo waaye nga bëgg nekk fii di ratatati yëkkatil micro bi sama épaule bi bi waay mitti boo ñëwee nga jàpp boo ñëwee nga jàpp tabarki Serigne Touba Mbacke yow bu ma la jàppee nga waay de babal xam nga kii mu ngi a yomb heure bu ko amee mu ngi si Fallou Ndiaye non heure boo ko amee ma la de babal jarul muy jarul muy sama combat sama babal sama combat bi passé ñi newoon stade ñëpp a ngi si gis nañ image yi man ñi ma yor ay millions lan yor ay jaaykati terrain barki Seydina Mouhamad laa la waatal barki Sëñ Fallou tirbine amateur ku fa taxaw boo indee dix million booy teg. aywa momo momo te dëkk benn ay waa déen man waa déen moo ne sama ginnaaw kii ay un million am yi moom lañ jàpp un million yow la njaab li xam naa da ngeen ko dajale ba sonn da ngeen man mbër mi man seul mbër maay bëri di teg sama xaalis man seul mbër di teg sama bopp di bëri di teg sama bopp di bëri man rek maa koy def te bu lu waral loolu da nga booy bala foo mi dama ko mën ah. foo mi ma ko de te yàlla xam ne ne waneegu ma sama bopp si làmb da nga xamul kii wala non man amul problème <laughs> jéem ma koo xam. waaw waaw booy bi rëy na laa mañ. jéem ma koo xam <laughs> fii wax nañu fi. ay millions la jël fay ñu ko. man ay millions laa fayeeku man Diop de. sama baat si fayagu ma 300000. fii bu dox la da wax ba mu neex caatu ngeen da ngay répété. di ñëw di ko. waxal da nga war a simi sa féeri ah, jaxaar ak njool. baay ah. ah. baal yaa loo mën da ngay dégg da ngay dégg ay raay ay raay non yaa fi ne di tëb ay raay laa lay wax. waa ñëwal Fallou Ndiaye mi hmm. sama moo tëgg sama ay làmb déglul li ma lay wax. Hmm. Matar Ndiaye sama ménagère la ñu fi nekk ay nitu làmb lan. Hmm. est-ce que yaa ngi dégg man ñi ma bëreel barki Seydina Mouhamad ñoo mën kii cent fois cent. waaye maa lay daan ma lay wax de kii bala maa dee mu naan ñi ma dajale daan yow ñi nga daan sama rakk bu ndaw ngóoraa barki alxuraan bu jaaroon kii yoon bi mu jaar waxuma la neuf combat de ay dix neuf combat dix neuf la yow kii ñi mu daan amuñu amuñu benn niveau dama lay daan bàyyi baa la te Fallou Ndiaye moo tëgg samay combat man ku ma mus a gis arbitre sifflé may may stratégie ay gauche droite mas ta am tapet mo nga man arbitre bu ne bi wallaahi sama tànk day attaque mas ta am sama carrière maanaam waxuma la ay waxi signature xam nga dimbali ay waxi signature waxuma la waxi signature waxuma la waxi signature wala ma nga ci nangu de na parce que waxuma la bi mo def ci très attention lu la yaangi bëre combat boo xamante ne poids léger la man bëre naa ay poids lourd yoo xamante ne ya te nga sëbët Typhine bu am doole poids lourd yi laa la wax ñi ma bëreel. waaw ñëpp doon wax naan caatu ngewel stratégie. waaw jëga problème de lu leer naa lay wax jëga problème de. Baba la musuma see anar yeeral doomu aadama. Mhm. te wallaahi azim barki Serigne Fallou Mbacke laa la giiñal booy bi maa ko gën a xotteeku téeméeri yoon. mais damay gën a xotteeku ma daan a jàpp la daan la yu métti yoo xamante wallaahi azim foo xool deret lay oh, ah? neex na yow booy bi eh, tàmm looloo bëgg 11 laa xeex si lamb 11 minutes ah looloo neex ah, looloo neex waaye ah, man waaye man lamb kon kon loolu man lamb daanaka ma kon waaye mi ngi lay topp de benn tàkkusaan ñaari jëli de booy booy mi ngi lay topp lamb daanaka ma mi ngi lay topp ki dama mën a topp ki maa ko dàqee téeméeri junni yoon man musuma dóor laaw musuma dóor laaw si lamb musuma dóor laaw si lamb moom day laaw ba def nii waxuma ku ma mos a daan laaw bu wëndeel ku ma mos a daan ñaari jël la benn tàkkusaan loolu yow xool yow lañ daan ñaari jël si benn tàkkusaan yow yow yow caatu ngew yow xawma ko la ko daan boo demee nga toog xalaat kan moo la ko daan li ngay wax amul. c'est faux waaw loolu yëpp garaaw li nga sànni fële cat maa la mën maa a nekk xale maa la ëpp doole maa la mën fukki junni yoon dinaa la la daan loolu tappan nga non bu laa bu leen non ni taxawal ni Diop léegi arbitre bi arbitre eh, bi génn seen diggante kan mooy diriger combat bi boo yow doo bandi. caabi yooyu bi si laa lay tuwaat daan la amul cicatrice yow doo def benn fee. français bi yow wow ngay français bi kenn yemagul français nga moo tax ma ñëw damay dox sa gàddu la daan la. français nga moo tax damay dox sa gàddu du ma la daan la. waay waay yow maa leen di wax si lamb. caabi yooyu yow sa benn tànk bi nekk. waaw gars yi waaw aywaay waaw kan mooy diriger. kii musul see théâtre moo tax musul see théâtre. moo tax yow man du ma comédien. moo tax nga gis ñàngu moo tax nga gis ñàngu moo tax nga gis Mandoumbe moo tax nga gis Ndeye moo tax nga gis Ndayane ñëpp la fàtte woon ñëpp ñëpp. di waat xaali. silaamu yi xaali sama waay la. déggoo li Mandoumbe man yi ma laa dëkk man ñooñu laay ndamoo. déggoo mu naan xaar du ma xeebal sama ñooñu. lu ko def sa waay xaali sama waay la moom xam na man xam naa. yow toppal fële. moom xam na man xam naa xaari un vrai artiste. Eh, xaali laa doon maa ngi indi séeréer bi ñaareel ñi kii fu mu dëgg sa maa dugal séeréer bi ñaareel ñi non xaali xaali kooku ndaanaan kii fu mu dëgg sa quarante minutes laay seetaan fu mu dëgg sa li ma lay wax mooy la ah, bañ dëgg sa waa yëmbal leen may wax ay waa yëmbal ay mbëri yëmbal booy bi dafa rëy mbër dafa bari wax billahi waaw ba day baax na waaw ba day baax na billahi ba day baax man yëmbal rek laay ndamoo yëmbal lu ñu wax baax na ñoom rek laay topp yëmbal ay waa yëmbal yëmbal lu ñu wax baax na yoo xamante ne ay mbër la maanaam ñoom yëmbal rek laay topp ci waay bàyyi leen natur leen ci yëmbal rek laay topp yëmbal ma booy bi yëmbal lu ñu wax baax na ñu ko wër duñ ko wax dëgg te booy bi daa rëy laa yëmbal lu ñu wax baax na yëmbal rek laay topp ma lay wax de. man yëmbal rek laay topp waa yëmbal merci beaucoup kontaan si ngeen wax waa yëmbal man yéen rek laay topp lu leen wax leen neex yéen laa bëgg. di woo sama ah. coach Abibou sa wooteel fii rek fee dama woote xam di woo ñëpp ba may bàyyi xam nga man lan laa gën a tal fi ne nga may ma man ma woote kii instant bi ñu toll nii waxam dafa bari man ay wax gu bari. maay daan de incha allah rabi barki Serigne Fallou. maay daan incha allah mm. maay daan Alaaji Fallou Mbacke. maay daan Diop de bu ma la anar yeerale. yow yow yàlla na ma yàlla taal. sa sa sa waadi war nga ko boo taxawee. sa waadi war nga ko bàyyi rek bu demoon yaa ngi waat yóbbu la faar yaa ngi waat. dama xam ne yow tàppale nga non kii xam nga problème baay baal la. yaa ngi waat yow ñi ma waroon waat ba mu def yow ñëpp mm. kii seera dama lay daan ah, seera nga kare mu ngi naan mu ngi naan ay ay combat 11 minutes laa xeex combat bi mu naan daa xeex combat boobu ñu mm. <laughs> <laughs> non wuy ma wuy ma. <laughs> wuy ma caatu barki maam Serafal ma bi mooy yéen ñaar man naa ne billahi bu ñu jaxasoo say mbokk force la yàlla na ko. booy man maa la dàq. man xam naa ne bu yoon. tabarki se xam nga lan déglu ma. yow maa koy déglu mais da nakaan yow yaa dégluwul. Mm-hmm. maa ngi fàtte di mbokk di nuyu sama mbokk géwél yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. Ah, xam nga booy seen problème mooy lan. bu mm-hmm. siy dajeeg man da ngay répété da ngay tëdd war a nelaw sax di enregistré li nga war a wax ak xam nga man doomu géwél laa kuy tuus ngay def kuy tuus boo ma nee cabra cakit ropa cakit jaba cabra cakit may la cakit cakit man maanaam cakit cakit yi taxaw fii mënoo cakit cakit ñawal ñawal cakit cakit yi taxaw cabra cakit waaw waaw man lépp si taa laa kay nga ni cabra cakit cakit ki cabra cakit non loolu dafa bari de xam nga lan mooy sama problème bàyyi mais wu ma damay open press affaire bi du loolu damay open press laa la wax le 22 le 22 naan mënumaa yow le 22 décembre. lépp bu ma open pressé le 22 laa la wax. Mhm. kuy open pressé ti man lay tàggu. Mhm. lamb ji du ma ne maa si dàq fee ci demee gën a dégg. waaw yaay daanu incha allah yaay daanu yaay daanu dégg ma dégg-dégg laa am. mooy ba an yéen yéen a ngi dégg ah le ñëw gérer ko incha man sama open press le 26 de le 26 man le 22 waa yëmbal ñëpp nag. Ibrahima open press bi tamit bëgg naa nga loo ma ci laalal bëgg Oh. léegi ñu ñu baale ngeen woote kon. voilà booy <laughs> ko wax naa ko ba ñàkk ba garay ko. waaw ah, la. <laughs> man kii moom sa rafal kàpp nga caat. caat ko ah? yaa ko doog a bu nga bind ko boo ah. a bëggoon ñu woote rek après ñu wo ñu woote benn yoon. waaw loolu yàlla dogal rek nan la eh, di bëgg kenn koo xamante ne làmb ji làmbam la muy dun paatandooy sama grand. wax dëgg yàlla depuis combat bi taxaw ba léegi mu ngi siy daj ay jéego yu mitti di ko bëggee di bëggee am rasul maa ngi koy bëggee bu baax a baax di bëggee Tafa Kanji Tafa Kanji maa ngi koy bëggee bu baax a baax. léegi mën nañ toog ah ñu def ko plateau de la fin. di bëggee famille Kanji bi. ah ñëw leen toog leen. Ah, ñu def ko benn yoon ah. ah. <laughs> da ngaa dof nga ni cawra cakin sa daanu woon mën na ngay cawra cakin cikin cikin mais loolu dafa bari de. ah ah. tama bongo ndeysaan man maanaam kër gi ma juddoo aar rek a fa am waaw man xam nga damay doomu géwél man maanaam tey jii am na lu bari loo xamante ni moom mu ngi wax xoolal ba instant yi xolam baa ngi jeex man fi ne yóbbuwuma fenn li ngay wax ah moo tax xamoo ma alhamdulilah moo tax xamoo ma moo tax xamoo ma mu ngi na déglu dama la a xamal leen tax xam nga léegi-léegi fii xam nga léegi-léegi fii nee la mais France buy soppaliku laa de bu yow nga xam loolu de. bu njool bi weexee tàll bu njool bi weexee tàll fooy France yi jub foo toll dégg booy joob de booy da nga yurnu da nga yurnu da nga yurnu. yow xanaa bëree woo Sénégal. non non Gambie yow yow dégg nanda bu soxor nga yow boo taxee yow nanda bu soxor nga. nanda bu soxor nga. yow nanda bu soxor nga barke Alxuraan Karim soxor weesuwul. non non soxor weesuwul damay bañ a sama ndaanal soxor. non da ngaa soxor. caat billaay da ngaa soxor. caat man caat man loo mën a def silaam rek dama la koy nangul. mais yow nanga loo mën a def silaam mooy da ngaa soxor mais bu bu la bu la 31 billaay walaay taala ma corrigé la. chaque jour ma nangul ko champion. mu nangaloo ma ne da ngaa soxor na boo taxee na am ay. lambi kaadama mooy ñëpp di wax ak ñax ah. du feeñ si taw. du feeñ taw de déedéet. voilà ñax du feeñ si taw. déedéet maa la dàq bëre téeméeri yoon. ah bala 31 incha allah bu dee kuy ku barki Seydina Mouhamad ki dàq bëre yàlla na ko yàlla may ndam lu. sedd kon de fii lay ndam di taw di ñëw si man ndam fii laa rëcc ko ñëw si man yàlla may ndam lu sedd yow man mën naa laa jàngal bëre te bu la 31 yow maanaam nga yow yan bëre nga war a bëre ji mooy bëre yi xaw ay saalum ak yooyu. mais ki soxor na ki soxor na jaajëf eh, maa ngi leen di jaajëfal bu baax jaajëf teel teel micro bi après ma ñëw ci yéen ngeen tàggatoo mbokk yi ah kooku moom mooy caatu ngéwél ak ki nga xamante ni moom mooy jóob dëgg borom <laughs> soo bi caatu ngéwél nee na ñàkk du feeñ ci taw dëgg la waaye xeer wa ca diggu géej tamit faalewul ndoxu taw de lu garaaw laa lay wax booy bi nga ameel booy bi nga am tey dafa os de parce que ku bëri neuf combats neuf victoire loolu rek loolu rek loolu rek loolu rek mbir la loolu palmarès bu baax la xam nga dama xamul nag ndax le jour du combat bisu 31 décembre ndax ci caatu ngéwél ngay taxawee ou pas loolu nag incha allah le 31 décembre la lépp di leer mais combat la boo xamante ni combat amateur yi la amateur ñu ngi koy waaj ah mobilisation bu bu doy nag la la jubdoo di di di di loolu na nga ko xam caatu ngéwël. waaw waaw waaw maa ngi lay waxaat ñii maanaam. danoo yee waayoo ci làmb ji ngor wakaam yoo mhm. bu ma ñëwee rek nga xam ni ñëw naa mhm. kii maanaam bu ma neexoon léegi rek buñ génnee di ñibbi ma mettre ka respect takk ko moom yóbbu ko <laughs> eh kii xaaral xaaral xaaral xaaral waaw booy dama toog kii yor micro sax ana micro bi yow foo ko tey. ah jaajëf waaw booy kaay nii. waaw yow kii moom ana micro bi. Diop caat moo yor micro bi. caat yow an sa micro eh an sa micro. sa biir nekk sax ay xale yu ndaw waaw jaajëf dégg naa leen maa ngi leen di jaajëfal. en tout cas ñemente ñemente ngeen de. leen dem fële topp leen man. Fallou Ndiaye. topp mooy lan. Fallou maa ngi ñëw waay Diop maa la ñaan loolu. waaw Fallou jaay ah, en tout cas maa ngi lay félicité bu baax a baax ci bés bi nga xamante ni mooy. ah bésu le 31 décembre parce que tey bés bi ngeen indil tamit bés la boo xamante ni dootuñu ko fàtte ah ak lu làmb dootu ko fàtte parce que xale yi xale yi ciy bëre ñoom ñëpp ay champion la mhm. waaw waaw Mama Lamine 2000 rek waaw c'est un très grand champion làmb reconnaître ko ci lu bëree bëri ñoom yëla baaba ah xale yi nga xamante ni daje nañ fi agogo yeneen xale. maa ngi lay félicité bu baax ci journée bi. merci Baye ah, ba pare jël bés bi nag tuddee ko koo xamante ni maanaam dëkk gox ba mu dëkk dañ ko bàyyi xel. Mhm. muy Ifra gox ba mu dëkk. dégg nga lu li Diop doo wax ci moom ma Dia wax na ko léegi ku ci nekk fa nga dëkk ña fa dëkk yaa yaa xam la ngay la ñuy dund ak yow. waaw ah, lu baax lool. waaw di nga waaw moom mooy mooy parrain bi. amul yëmbal amul màkkatal mukarrama mm-hmm. mooy na jàppale jëpp. Mm-hmm. parrain dangay def yëpp parrain jàppale kii jàppale kële waroo far fii waroo far fële. na ma jë bu fekkee da koy jëndal ay na ma jëndal ay billets. Mm-hmm. mais ay ay yëmbal ak ay màkk ak yooyu yëpp foofu la yam géew ko man ak moom la la arbitre bi suuf la ma naan kii nii Ifra tuddeewuñu ko laam bu yëmbal. Lambu Ndiaye production lañ ko tuddee kon nag na ñëw jàppale ñëpp loolu laa am si may wax. jaajëf kon Ifra dina ñëw ci ñaari mbëri dina ñëw ci Diop 2 dina ñëw ci euh, dina ñëw ci caatu ngéwél parce que jàppale ñaari mbëri mooy jàppale Fallou Ndiaye Ndiaye production te Fallou Ndiaye dafa jar jàppale Fallou Ndiaye mooy li may wax rek bëri na xale yoo xamante ni moom moo leen wane ci làmb ah moom moom ressources humaines la mi ngi jàppale xale yi mi ngi feeñal jeunesse bi mi ngi ciy génne ñu bare bare bari kon donc kii sponsor yi dañu war a ñëw wuy si ko Ndiaye production ca kaw ca kanam ci lu baax Ndiaye maa ngi lay déggewaat bu baax. waaw Baye Balla ñu ngi am mbégte bu baax vraiment face to face bi am na solo neex trop comme ni ko caatu ngeel waxee rek loolu lañ koy waxee Evra liñ koy ñaan mooy mu jàppale ñoom ñaar ñëpp comme drapeau bi drapeau bi la même yeneen bëri sax bu leen mënee jàppale mu jàppale leen.